ورضي الله عن شيخنا أحمد التياني وعن سائر مقدم خلفائه خصيصا عن شيخنا الحاج عمر وعن مولانا الحاج مالك رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله gannaaw bu ñu santee borom bi subhaanahu wa taala ñaan ko mu wutuñu julli ñu ci yonente yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ngërëm suñu wasiila ci yàlla cheikh seydi ahmed tiyaani ñaanal ngërëm suñu wasiila cheikh alxaaji omar fuuti suñu maam suñu sëriñ Mawlana Xaaji Malik ñu ngi wax mbokk jullit yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nekk ci téere bu barkeel bi ñuy wax awdaxul masalik fi madxi sayidi cheikh alxaaji Malik fa tabaarakallahu tey ñu toll ci ay melokaan yoo xam ne ni moom lañuy ñuy mën a tënk ci sëriñ bi mu wax ne adibun wa bal zu haybatin bi waqaarihi wa saddaau saddaamin bi xaqi lmunawiri munawari fa cheyqun falaa yaxaafu fi llahi lawmatan wa kawaalu xaqin fi lkitaabi maa annasri aw innazmi bal hataka sitaara liman jafa wa dil jahli aw min laacibi ddiini fi lqutri fa yurshiduhum lilxaqi yubdi bima xtafa min alxaqi عن عادات غافل ذي الجور فكم وضح الشيخ بنهج نبينا ويكشف غيم الجهل كالشمس بالجهر فكم قد هدى من قد ثوى في ضلالة مع السحر في تمائم نفثة السحر سحري ومستعمل على العزائم والخواتم السحر يرشده إلى قنن العصر wa mustarziqin ya ummuhu fa yanaalu ma yuridu bi wajhin dil bashaashati lil bishri fa kam fa kam qad jala shubuhaati diinin ka rafcihim bi sawti nisaa xaraa'idin shaaca fi dahri fa qaama bi jiddin bal nahaahum saraxatan li kawnihi fi sharci xaraaman li dil jahri wa arshada amman yahtiku sharca binnisa bi jamcin fuwayqa al arbaci bittahatturi naha an sharaabi alxamri fi ayi shaklihi wa yamuru ixraaja zakaati liman dari fa acni xubuuba alfustuqi qaama jahratan bi tawtiidi diini almustafa daaka qad xari bi madxin lakad marrat calayna bucaydahu bi qarnin fala yazaalu yaxya ala dikri bi ismin lahu fi kulli xaflin nuraddidu bi njool faama njool gaaya fa yaa cajaban sayri walamma tammat xayraatu rabbi dacaahu rabbuhu liljiwaari mac nabiyil munawwari fa jaa lahu ajlun fa sallaahu xibbuhu fa mor xujja si akrim bi ahlil muxayyari fa yadfanahu fa yadfanahu l abnaau summa saiduhum wa sinwun lahu saidu nuurin muqabbiri walakin buayda cheikh qaama akaarimun fa tabaarakallahu muy ñëw nag ci dernière dimension yi mu bëgg a jàngale ci sëriñam cheikh alxaaj malik radiallahu anhu seydi alxaaj malik képp kuy taalibeem sigil na la sagal na la defula benn avocat buy wër di ko layyil ci biir ak ci biti ba am téeméeri at ci suuf tey ñu di ko màggal ci personnalité boo xam ne képp kuy taalibeem am nga ko ci moom mu ne kon yow mi nga xam ne yow yaay njabootu Cheikh Al Hadj bégal ndax da yëg ne am nga adibun formateur nit koo xam ne nii moom dafay former njabootam Euh, ndax nit mën naa am sëriñ rek waaye am ku la formé nag defar sa jikko euh, yombul wa bal zu haybatin Seydi Hajj Maalik borom caractère la kenn du ko yàpp bi waqaari yi ànd ak wegu ndax boobu ba tey mu ngi lay wax ay jikko yu baax ay yu yu dal yu sell mais wax na leen laa yu xasiri taxul nag mu jural ko li ñuy wax maslaa guy jur ci moom maasale Cheikh Al maaj Malick musul nangu loolu wa saddaahu dafa daan da daan xaañ saddaamin dafa daan maanaam dóor bi xaqin ci dëgg al munawwir maanaam Cheikh Al Hadj Malick doonul nitu sentiment boo xam ne dañ naan dafa yaru dafa baax bismillah dafa yaru dafa baax dafa woyof moom vraiment boo ñëwee rek tey la raay la déedéet Cheikh Al Hadj Malick du loolu ñu muy bari bari sagesse bu dëgg jotee dala koy xañ ba ngay nàcc moo tax ñu wax ne mujj dundam presque mënatula dialoguer ak ñu bari ndax jëppi ñu bari rek ndax moom xamul diinay fo diinay caaxaan diinay aada moom nangu ko xamu ko moo tax fa cheikhun fala yaxaafu fillahi lawmatan da sëriñ la boo xam ne baax na lool waaye ragalul ci yàlla dara maanaam li ñuy tuddee ay conséquences léeg-léeg nit wax dara nga ne non damay bañ bu ma ko waxee nit ñi dina am ñu mer am na ñu ko gisee nii am na ñu ko gisee nii d'ailleurs Cheikh Hadj May May janoog ñaari téere yu mujj taalif muy ifhamul munkiril jaani ak kifayatu raghibin presque 1920 la ko taalif euh, bi mu ko commencé di bind luñ war a dénoncer ci diine ji dénoncé na ko avec courage beneen bi kifaayatul euh, ifhamul munkir lu ñu war a dénoncé ci ay dérive ci tariqa bi dénoncé na ko à l'époque euh, te amu ci benn complaisance wala téere boobu moo tax ba fii may wax ak yow nit ñi fu ñu firi ko problème la mu ne sëñ kër Si lu ñu war a wax ci diine ji dénoncé ko danaa ko dénoncé lu ñu war a dénoncé ci tariqa bi danaa ko dénoncé léegi nag bàyyi la yow ak seen àdduna tabaarakallaahu ngeen doxal malheureusement yam dénoncé woon ba tey pratique yooyu mu ngi fi des mais moom ci bëmbëstal ndax noo tudd si xaj maay te doo tudd moom yi mu dénoncé woon moo tax indi na loolu mu ne wa qawaalu xaqin ku daan wax dëgg la fil kitaab yi ci téere maanaam da koy wax ci làmmiñ ba nga dégg ne sëriñ bi de ah wax na dëgg waaye ma an nasri daf koy bind itam en même temps parce que boo gisee principe am des fi ba tey critique yi mu doon def yëpp daf fee des ba tey gis nga sëriñ ma Sall li mu ko waxoon te Mawlana Hadj Abdoul Aziz nettali ko ci wax nañ ko ci gannaaw julli geewee di wax ak nit ñi di wax ak nit ñi di wax ak nit ñi ba bi jotaay ba tasee ñu ñibbi ci suba ga maam Mayoro Sall ñëw ne ka xaw mi biig de reer yi ñëpp ko jéggi mu ne ci lan noonu nga ko ndax tiit ndax démb waxtaan wi nga doon def daal ci geewe ci jàkk ji tiital na nit ñi ak tàngaay bi ba tax daanaka kenn amul fitu reer Seydi Hajj Maalik ne leen ah nga xam nga ñu ngi doon xaar ci moom mu mu mu oyofal mbir yi naan ah loolu du waaye dana ah kon yéen li ma doon def ak yéen waxtaan ngeen ko jàppe mag mu toll ni yàlla ma wax ay waxam yonent bi ma wax ay waxam ngeen jàpp ne dama doon waxtaan ak yéen rek comme waxtaanu copain copain am déedéet man dama doon jottali rek la mu la ma wax nag ku mu naqari dellul ci yàlla mi ma wax loo moom mujj dundam daanaka tabaarakallahu dafa tàng jër ndax xaal bi nag dafa mat noonu itam la bindee wax dëgg yàlla dénoncé na yoo xam ne boo koy jàng ba tey da ngay rus parce que yamu dénoncé woon yëpp moom la ñuy dunde te mooy aada bokk na ci toog di la ñu lay tagg waaw yow yaay lii boo mel woon nii mu bett ñu yow yaay lii te loolu jotaay boo dem moom ngay fekk waa ji xukkaliku ba sax kuñ ko defalul nga nga nga mere nit ñi ne xam naa dañ ma ko dañ ma ko iñaane mais moom lépp lu mu waroon dénoncé dénoncé na ko ci ay manuscrits awin mu wala ci ay way daan na gis nga kifaaya daf ko wesar ba pare way ko pour yow nga mokkal ko lépp loo xam ne nag ñi fi nekkoon di woote diine dañ ko doon làqatoo ci ci lislaam moom si xaj maay dénoncé na loolu wax na ñoom seen melokaani bopp la waaye du lislaam ndax ñun comme lislaam yaatu fi woon ci xam-xam da nga daan gis ku def lu ko neex tudde ko lislaam naan noonu loolu baatin la yéen doon am amuleen niveau comprendre loolu xaj maay nee na lislaam amul amul ñaari côté benn rek la moo tax mu ne bal xëtëka sitaara dafa enlever rideau bi li man jafaa ci koo xam ne saay-saay la woon da doon mbubawoo lislaam am na ñuy mbubawoo lislaam Euh, di def lu leen neex wasil jëhli ak ñoo xam ne ay ignorant lañ xamuñu dara sax ci listam aw min laa'ibi diini wala ñuy fowe diine ji fil xutri ci goxu Sénégal yi moom Cheikh Al Hadj Ba da leen dénoncé da leen ci ay contemporain ak lu lu ñëwaat ci gannaaw gi mais dénoncé leen ngir dafay xotti ma déedéet fa yursiduhum lil xaqi daf leen orienté ci dëgg maanaam dafa bëgg ñun nit nit dafa war a crédible mais nëb bu def loola neex naan noo baatin la mais fan la nekk baatin fan loolu koy yow amal reconnaissance ne man maa matul rek nit matul ñun ne parfait waaye def say imparfait ba pare justifié waat ka naan noo yéen martaba bi ma yegg xamu leen ko dégg yeggoo fen moom yub di dafay leeral bi maxtafa looloo tax bu gàmmu masaana jot ñëpp dañuy xaar parolam ndax lépp lu ñu fi def ci lislaam moom dana ko dénoncé ci jumaa ji bind ko tabaarakallahu ba ku gëlëmoon sax di nga xam ne ndekete loolu demul euh, loolu est-ce que desul këram ba tey bu ñu demee ba àdduna tukki ñëpp jaaxle kenn xamatul fooy jëm ñëpp ñu ngi yàkkam ci gàmmu Tiwaawan jot bu ko defee xalif bi joxe discours ñu décortiquer ko kenn ku ne xamaat lan mooy lislaam lan mooy kii ndax yonent bi nee na xol dafay xomaat comme ni weñ di xomaatee xom weñ boo ko dencee fenn bu yàggee dafay xomaat xol noonu lay def bu ko defee nag dangay soxloo benn liim boo xam ne nii moo lay liimeel sa xol dindi écorce ci nekkoon ba mu set wecc Cheikh xaj Hadj Malick noonu la masoon a mel lépp loo xam nëbbu na rek minal xaq yi ci dëgg an aadaati xaafili dil jëwri ci aaday koo xam ne saay-saay la jël ay coutume am boole kook lislaam parce que bien avant l'islam di fi jaatu nit ñi dafa am ay pratiques yu ñu daan def yooyu coutume la woon ñii loo masaan a bëgg rek ci réew mi am na sacrifice booy def boo ngay dem ci benn maaman te manul dara kat mu ne boo bëggee nangam da ngay sacrifier nangam ah bëgg nga doon buur nga ne waaw mu ne sacrifier sa doom bëgg nga am alal sacrifier lii bëgg nga am lii dangay jël deretu nangam yooyu moo fi xewoon. loolu nan la tudd du njibar mais l'islam bi bi mu ñëwee ñooñu dañu il se réclame que ne dañoo tuub mais taxul ñu bàyyi kii yële ndax yooyu moom lañ bàyyi ca gannaaw kër ga da gis sax danga nga wax ak kenn mu naan man daal bu ma demee ba xamatuma fu may jëm ma delluwaat ci yëfi maam yi yan maam yan maam moom nag yooyu moom Cheikh Hadj Ba yooyu la mosul accepté ndax nee na lislaam da ciy dugg entièrement mbaa nga bàyyi ko entièrement mais pour benn benn parti ne yii pour maam yii pour kii moo tax fa kam waddaxa cheikhu bi nahji nabiyina combien de fois la cheikh alhaj malik éclaircir ci l'islam ju sell ci yoonu yonent bi wayeg chifu mu enlevé raymal jëhli niiru ignorance xam nga léeg-léeg nga toog ba 13 benn niir nuage rombala ci asamaan si ba doo gisati asamaan bu fekkoon ngay nelaw sax yeew danaan i timis jot na fekk timis jotul treize heures a jot mais dafa am rek benn nuage bu romb sa digganteeg asamaan si nga foog ne existé wul boo ko mayee tuuti ab diir bu demee rek nga gisaat naaj bi Cheikh Hadj Malick itam ñooñu fi nekkoon vraiment doon ay niir yu ñuul kuk bëgg sonal nit ñi ci indi leen beneen lislaam moom moo ñëw enlever niir yooyu kacham si mel ni moom jant bil jëhri ci njolloor jantu bëccëg moo tax bari na sëriñ soo xam ne arrangé wu leen woon ma ne ba tey sax ba tey ndax jàngale yi defe naa arrangé wul ñu sant njaay ndax itam arrangé wu leen parce que euh, koo xam ne sa lépp dil la dangay ngay dil bay dil ci diine ji kenn doon jant bu leer nañ bëgg a wan nit ñi ne diine du ay dil xam nga kooku du la arrangé te loolu heureusement moom waxul rek dem bàyyi ko bi mu ne da ko bind ba nga xam ne keneen xamul nooy contourner mbir mi yow man ngaa mel nag sa melokaanu bopp waaye pour contourner liggéey si Hadj Maalik non moom sécuriser na ko ba nga xam da ko bindal boppam soxlawul nga doon contemporain pour xam moom lan la liggéey déedéet bàyyi na ko fi mu ne xat fa kam xat hëda ñaata yoon la orienté man xat sawa fii dalalatin ci ku yàggoon ci riir koo xam ne ay pratique non l'islam ci la nekkoon pendant de décennies Cheikh Al Hadj Malick ñëw ne ko gis nga lii nga nekk boo ci deewee safara nga jëm ma sixri ak njibar da gis koo xam ne ci njibar la nekkoon naan yii laa donn ci samay maam Cheikh ak Hadj Malick ne ko gis nga yii boo ko bàyyiwul boo dee safara nga jëm fii tama imi ak ay gàllaaj da gis koo xam ne dafa takk ay gàllaaj nga dëgg yàlla gàllaaj yoo xam ne nii ay kilo la kooku boo ne gëm nga yàlla itam am na yoo xam ne bari na garaam ba yu sol dara juru ko lu dul ay gàllaaj yu ñu war a def ci biir ba mu yegg benn niveau bi il fallait que dañuy soxla ñoom garaam yu rëy booleeg nafsati sexr ak koo xam ne fu mu toll mu ngi mu ngi xaw di ëf waaw loolu dina moom yooyu la fi fekk te ñooñu lañu daan woowe sëriñ defe naa tur boobu mu ngi fiy des ba tey yow am naa sëriñ bu garaaw fii wa mustaamilin ala al azaimi Cheikh Al Hadj Malick daf fi fekkoon ñoo xam ne ni day dañuy utiliser ay jat jat bii kay boo ko jatee rek da ngay téewaaj da koy da nga koy hypnotiser ba loo foo ko jëmee rek mu dem wal xawaatimi ak ñii na naan xaatim bii ma yore nii kii xaatimu Souleymane la Souleymane dafa xam lii xawaatimi sixr yooyu yëpp doon ay njibar yursiduhu boo ñëwee nag ak sa fierté ak say gàll ak say ngàll ak say xaatim mu yursiduhu mu orienté la ila qunalil asri ba nga dem ba ci sommet Euh, mbaax ak yiw loolu ñaata la ci def te loolu ba tey mu ngi koy def bari na loo foog ne baatin la fekk na boo ci dee musiba am wa mustarziqin léegi loolu ci wàllu orientation euh, spirituelle la mais itam nit dana ñàkk dëkkam nawet bi antuwul mu toog toog affaire bi dëgër mu ne ah xaaral ma dem ci Malick Fama mi may dégg dugg saxaar wala nga jël saret ñëw ba Tiwaawan toog moom mu ne la mu ne la dëkk ba nga nekk dëkk sàngam mu ne la dal ba nga nekk dëkk sàngam mu ne la tànk yi nga nekk si àdduna rek ma dab aw ma dara aw ma lii aw ma lii mu a ah, kon nag toogal ba yàlla ñëw toogal ba yàlla ñëw nag li mu ci jublu mooy lijjanti la lu am solo loo xam ne bootul fa ngay jaare yow di dimbaliwaate moo tax mu ne wa mustarziqin bari na kuy sàkk wërsëg ya ummuhu ñëw ci Cheikh xaj Hadj fa yanaalu maa yuridu mu am li mu bëgg yépp mais joxin bi rafet na sax mais ni mu la koy joxe moo lay gën a satisfaire xam nga ki nga wax soxla mu fajal la soxla bi boole ci patu yu metti naan vraiment da ngeen gàtt xel trop parce que ki dem rek nga fi bujje xam nga loolu boo amee jom da ngaa kan du maa doon wut jëla jëlëjël jërëjëf jëlal <laughs> mais Cheikh Hadj zil bashashati bi wajhin dala koy joxe ci kanam goo xam ne zil bashashati dafay belli lil bishri ngir mbégte loolu kat am na ci seede bàyyi Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour doom daara ji xam nga ne di may nit di ree <laughs> ci moom lañ ko gise ah jël def ci un million di la di la tàpp di la ree naan waay bu fi gëjati waay xam nga ku ñu xam ne da ngay ñaan bu ñu bu ñu xàmmee sa bootu doo doo gis borom kër gi te daal dafa jënd waa ji dafa ñëwoon wër fu nekk bëggoon ku ko dimbali mu jaaxle ñëw ci ku mu yaakaar bi mu ñëwee toog nuyoon teg bëkk bi ne ko sëriñ bi daal nee man la diw dama bëggoon daal ñëw naa fi pour la ma fi daan wut ndeke sëriñ bi xàmmee na ko eh, sëriñ ba fatu bëkk néeg bi fekk ko fa nekk lan la mu nekk ko diw de moo fi ñëwoon nee na daal la mu daan wut waa ne ko sëriñ ba ne nekk dama génn nekk ko nekkuma fi xam naa bëkk néeg bi nag éloquence sama des mu ñëw ba ci waa ji nuyu ko ne sëriñ bi mu ngi lay nuyu sax mu lay sant mais nee na ma wax la ne moom nekkul mu nekk ko ah sëriñ bi la ko wax mu ne ko ah ci moom laa jógee léegi kay nee na ma wax la ne new fi xam nga kooku rey na sëriñ ba waaye dafa ma jël jaaxle sax dem xam naa ne xam naa ne rek euh, la mu doon ndox sottiwul waaye Sidi Hadj Maay bu lay may dafay rey dafay bég ndax moom jàppul ne yow lay jox mais jaamu yàlla lay jox fa kam qad jala shubuhaati diinin ka rafihim bi sawtini sa xaraidi shaa fi dëhri moom bokkoon na ci pratique yi nga xam ne ni lislaam nangu ko daf fi fekkoon ay ambiguïté yoo xam ne euh, leeral na ko moom Cheikh xaj Hadj Maay bu pare dénoncé ko ñu ne ko comme yow kon comme yan mu ne ka rafihim bi sawti nisaa comme baatu jigéen xam nga baatu jigéen awra la mais daf fi fekkoon ay pratique yoo xam ne jigéen ñi dañuy woy loolu nag xam naa jiitu na sax diine ji ndax ndaw rabbin yi ngaan déggee ku koy way jigéen ñi euh, gàmmu ceddo yi fi nekkoon ñan ñoo kaan way jigéen ñi gumbe yi ku koy way loolu bi lislaam bi ñëwee ñu boole way yooyu ak lislaam bi di ko way Cheikh Al Hadj Malick ne leen bokk ci jigéen buy julli nu muy def day yelu julleem mu ne waaw julli ak toog di tudd yàlla ban moo ëpp doole ñu ne julli ndax lislaam julli moo ci ëpp doole mu ne nag waa ki noppiloo ci julli gi ba booy liqaam ci suuf nga war a liqaam booy tari ci suuf ngay tari jigéen même bu mokkaloon kaamil bi ci suuf lay jàng waaw est-ce que kooku dina la dina la xaña dina la war a nangulaat ngay zikr ci lu dul julli ci jaamu yàlla julli moo ci ëpp doole Cheikh Hadj Malick taxaw défendre ko ne jigéen baatam awra la xaraa idin shaa fi dëhri nga xam ne siiw siiw na loolu ndax pratique yooyu desul ba tey hmm? mais moom daf ko dénoncé bind ji ne képp ku ko daganal tegoo ko fen wax ci lu tàng fa qaama mu taxaw bi jiddin ci pas-pas bal nahaahum mu tere leen saraxatan ne leen waxuma ne jigéen war na toog di way ci kaw sax mais moom rek warul toog ak ay góor ñuy janoo nii seeni noo di duggante ndax loolu dénoncé na ko ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jigéen warul toog euh, góor ñi di noyyi xetam moom it muy noyyi xetu jigéen ñi maanaam loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ko wax Fatima dafa ne Fatima Zahra doomam lan moo gën ci jigéen mu ne ko daal pap li gën ci jigéen mooy mu bañ a gis góor góor bañ koo gis ndax kat nit ñi kat ay yàpp ak yàpp yàpp ak deret rek lañ yàpp lañu ak deret diggante góor ak jigéen boo dégg defe naa gise dafa am hmm? moo tax ñu ne golo golo dañ ko laaj ne ko yow yow golo yaa ngi bàyyi sa jabar mu nekk fële ci àll ba rek toog fa moom rek nga nekk dëkk bi nii loolu wóorul mu ne moom daal bu fa kenn dem rek moom daal ak lu mën a xew bu fa kenn dem moom bu dee man rek lay gis li li ci des yëpp amul problème ñu ne ko non àll bi mu ne mu ne ma yéen comme li jënti ba xam àll yu mu ne yéen wel fa dem rek góor ak jigéen daal nañ bañ a gisee rek ndax yeneen ci des yëpp ay détails lañ ndax loo dégg ñu ne diw ak diw ak def dañoo gisee dañoo gisee waaye buñ giseewul tooguñu dara du fa mën a xew moom loolu moom mas a doon principe am moom Cheikh Al Hadj May nanguwul woon sax góor ñi góori këram dugg ci waañ bi waañ kat moo fay togg jigéen ñi mu ne nag moom da daan wax ne ana góor ak waañ ba nga xam ne góor bu soxlaa dara sax ci waañ bi boo tol jafe-jafe yu rëy lay am ndax buñ ko fa bettee dara du ko jar dañ koy boole góor gi rek nekk fekk nañ diw ci waañ yi moo tax moom dafa daan daf ci sévéroon gis nga loolu li ko ci yàlla fay tey gis nga li àdduna yàqu-yàqu ba tey xadaraam ñu ngi conservé loolu du dëgg euh, yàlla nañ ko yàlla fayal faqaam bi jiddin bal nahahum saraxatan li kawnihi fi sharci ndax nekk gu mu nekk jigéen juy way ci kaw walla ci ay rajo xaraaman dafa xaraam lisil jëhëri ci biral gi loolu dafa xaraam wa arshada moom bokk na ci ay orientation li waxu ko rek yem ci da cee da cee bind ba tey bindam yi ngi fi aman yëxtiku sharia ci koo xam ne dafay xotti xormay sharia binnisaa ci jigéen ñi bi jam in ci boole fuwayqal arba'i lu ëpp ñeenti soxla bi tahatturi ci xotti xormay lislaam moom daf fi fekk loolu ñenn ñi ay ceddo nañ dañ ne ay sëriñ lañ boo doonee sëriñ da ngay am ay taalibi léegi taalibi yi nga am ku ci am doom bu am vingt ans vingt cinq ans bu jigéen day da ngay xëy rek mu muur ko ñëw ne la sëriñ bi indi laa ko addiya indi indil laa sama doom addiya waaw boo amee téeméeri taalibi taalibi bu ne indil la addiya nga nga jël ko yow nooy tuddati nga noonu lii ay addiya yuñ ma jox la nit kenn du ko joxe addiya nit dañ koy maye bàyyi bi ko jur nag bu dee moo la ko indil effectivement dala ko may mais lislaam amul droit maanaam joxu la droit nga war cee denc lu ëpp ñeenti soxna moom époque bi mu koy dénoncé nag pratique bu siiw la woon am na ñoo xam ne ba ren amaluñu limite li mu soxna wala te yàlla lenn la maye mooy boo takkee ba am ñeenti soxna boo bëggaatee keneen man nga wàññi kenn dugal kenn wala nga yeewi jigéen ñépp jël ñeneen te loolu ko yàgga def fii moom yàlla buñ la bàyyi sax taayale am na benn waaju dee fële dëkk sàngam wax nañ ne joroon na lu mat ñetti téeméeri jabar mane ne mooy de dee na fan yële euh, loolu caaxaan la wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa soxna la yoroon mi yàlla ginnaaw gi daf ne ko laa yaxillu laka nisa amatoo droit takk soxna baax di gannaaw juróom-ñeent yi jeex na moo tax dangay ngay dégg yaan yonent bi amul woon limit ci soxna aha kay bi aaye bii wàcce moo ko moo ko tëj moo tax juróom-ñeenti soxna yi amat yokkuwul ba ni mu boromam waaw gannaaw yenent bi lañu lañu homologué marché yow mii nga xam ne danga toog rek tañ laayu Cheikh Hadj May nag bi mu gisoo loolu mu ne lii xaraam na ñu naan borom àll dafa am àll mu ne ah, yàlla nag boo ko digle dañu wax ne ñeenti soxna képp ku ko weesu xam nga ki takk juróomeel ak ki takk juróom fukkeel ñooyam ci lislaam parce que lu xaraam xaraam na rek jur cinquième bi ak cinquantième bi benn la parce que boo xasee jéggi charte jéggi nga charte léegi nag yàgg borom charte yi yéen a koy lijjanti ji ëllëg ñun nag dañ dul xam itam léegi nga gis kilifa diine mu takk ay soxna xëy yeewi ñooñu te du la ko informé man na jël ñeneen te du la ko informé nga foog na nag dafa am lu ëpp fekk xëy na du ñëpp waaye daal moom daf ko dénoncé loolu gis nga itam ñu ci sant yàlla bu baax gis nga loolu njàngale di mu def ci njabootam ba tey sëñ Abdoul Aziz wax nañu ko ba tey pratique yooyu est des fi ba tey moom xeex na ba tey waaye des na fi waaye teewul bind na ko jaanam wàcc na beneen bi mooy daf fi fekkoon ñoo xam ne nitu diine lañ waaye ñuy naan sàngara dafay am pratique yooyu itam mu ngi fi ba tey ñu ne kii sëriñ la moom mooy yónni néeg bi li ñu naan buñ demee ba yëpp kii ba ñu yeewi taalibe guddi gi ñu naan xam naa balaa fajar yëf yi dina mën kii euh, sëñ nettali nañ ci koo xam ne nii nee na dafa ànd sëriñ bi ñu dem naani ji euh, ba tabaarakallaahu kii ba tàng taalibe bi nag ëlbatiku naan sëriñ bi <coughs> sëriñ mu naa mu ne ko yaa ngi ne dur mu ne ko yëwit yaa yaa ngi ne dur xam nga ne këriñ doo xam lan la gannaaw taalibe bi mu naan yaa ma gën a nekk dur jooju diine loolu amoon na fi diine la joo xam ne ju oyof la woon euh, ni ñuy ravitaayee lu ñu lekk ak lu ñu naan noonu la ñuy ravitaayee yooyu mais moom naxa mu tere an sharabil xamri ci nan sàngara fii ay shakli yi ci melokaan bu mu doon am ñoo xam ne dañuy tiital nit ñi nanoo sàngara la sax bu ñu koy jënd mais sëñ bi bu ko xësee naan rek buy agsi ci gémmiñ gi day doon meew Cheikh Hadj Baye ne comme yéen mais meew ak sàngara bu gën a bu gën a cher xam nga sàngara wax dëgg vin moo gën a cher euh, meew bridel bii nga xam ne léeg-léeg euh, sunguf meew bi sax boo ko jëlee def ci ndox rek nga am kii mu ne comme yéen man ngeen kay di ko soppi muy kii est ce que mënu leen woon jël bu naturel bi rek la consommation yëpp bi gën a naturel sax moo tane nga xam ne lu caaxaan la ndox boo bëggoon naan meew xam nga fi meew am ñu ne non bu leen dingat sëriñ bi parce que moom gis nga sàngare bu ko naanee rek day doon meew ma ne lu tax muy màndi meew kay wax dëgg yàlla waru waru màndiloo nit ci yooyu ba tey mu ngi persister yàlla ñu ci yàlla musal waaye gis nga li ci yàlla seetale Cheikh Hadj Malick ndax loolu mooy njariñal dénoncé ko maanaam bu dénoncé yii même bu ko ñëpp dul def itam yow booy tuddee woo njabootam xam nga doo mën a defar ci li ndax sa kilifa moo ko tere bokk na ci wa yamuru ixraaja sadaqa euh, euh, euh, wa yamuru ixraaja zakati li man dër yi bokk na ci pratique yi mu dénoncé mooy ñuy génn azakay mbay ndax ñun dañ tàmmoon rek da ngay bay xam nga yóbbu ñetti saaku gerte wala ñetti wala ay grain wu soble wala yaa xam loo yóbbu après gaare ay camion muy ay tonnes nga dem jaay ko récupérer say millions naan oh nawet bi ren baax na waa léegi est-ce que jaaduwul nga génne axu borom nawet bi hmm? borom nawet bi ndax yàlla moo bay léegi ñun Sénégal dañ jàng ci fiqh ñu ne euh, gerte gerte kenn waru ci génne asaka mais turu gerte moo tudd fustu mais arab yi gerte bi ñuy wax maanaam même tur bi la léeg-léeg nga dégg sax ñu ne melon melon mais yow melon bi ngay xam yow ak bi am fële xëy na man na bañ a niroo ban gerte la Cheikh Hadj Malick ñu ne mu ne comme ñun tubaab yi exiger nañu ñuy bay ñun gerte bi dañu ñu ko exiger ba daanaka kenn bayul lu dul moom waaw li la génneloo euh, azaka ci dugub bi dugub bi doo ko génne azaka génne ko ci mboq bi waaw lu tax moom warula mën a génneloo azaka ci gerte bi surtout koo xam ne ni exclusivement gerte rek lay bay moom mu ne loolu d'accord ci bi mu demee Makka ci la yóbbaale gert suñu gerte yi yóbbu ci loxo bi mu demee ba Azhar université la ca Caire jox leen euh, euh, maanaam denrée bi ne leen ndax doo leen def recherche ci ne lii war nañ ci génn asaka wala déet ñoom comme amul foofu ñoom ñu laaj ko ay laaj euh, mu tontu ci bokk na ci waxoon nañ ne yuxraju min kulli zeytin min kulli zi zeytin fii zeytihi asaka lépp loo xam ne denrée la bu fekkee dafa am huile huile bi da nga ciy génne asaka maanaam ko amoon loo xam ne nii da nga cee bay pour soxla huile euh, huile bi huile de palme huile de nangam huile huile ci boppam da nga ciy génne asaka mu ne may gerte da dañ ciy génne huile dëgg la dëgg en même temps dañ ciy génne rakkal dañ ciy génne lii dafa bari yu muy def mu ne daal li dal xelam moom moom da ci génn asaka ba pare digal ko ñi ko topp looloo tax loolu pas bu rëy la bu maam Cheikh Al Hadj Malick def moo tax mu ne fa ani xububal fustuqi mooy asakay gerte paama jëhratan ci la taxaw bi tawti di diinil Moustapha ci dëgëral diine yonent bi daaka xat xar yi loolu moo tax Seydi Hadj Malick mérité na bi mat xii ci tagg gi ma koy tagg est-ce que lii ku ko def ci benn siècle est-ce que mérité woo ñu lay tagg ba faw kon yàlla na yàlla fayal ñu Cheikh Al Hadj Malick anhu mu ne nag pour tëj certes lakat marrat alayna bu aydahu bi qarnin Seydi Hadj Malick moomu nag ma tàmbali woon téere bi ba tey di wax ci moom ay baax ak ay pratique yooyu yu mu bind la ku ko gën a ku ko bëgg yaatal nanga nga dem gëstu ci euh, léegi ñu ne faatu na xëy na ñi sàgganoon ne ndokk yàlla sax ndax ñu noppalu ndax kii li mu daan critiquer dafa bari waaw mais mu ne man li ma yéem mooy man fekke naa lakat marrat romb na yi naa ci ñun boo ay dëxu gannaawam bi qarnin ci siècle léegi am na siècle vingt deux la woon ba ñu ngi deux mille vingt deux te li may yéem mooy wala yazaalu yux yii euh, tey la gën a euh, présent ala zikri ci tudd tey lañ ko gën a tudd tey la idéologie am gën a dox tey la doxalinam gën a rafet dëgg la dëgg euh, ñu koy tudd bi ismin ci turam euh, Sénégal gii mën nga fee def gàmm ba mu tas te turam turam du fa apparaître hmm? mën ngaa waxtaan ak yonent ba mu sotti te turam du fa apparaître nekk waaw kon ku am siècle nag ci suuf te doo tànt ab tànt doo toog sab sal te doo ko tudd waaw kooku en réalité ndax ci suuf lañ ko denc déedéet denc ñu ko ci suuf ci xel yeeg xol yi lañ ko denc moom Cheikh Al Hadj Mari moo tax mu ne bi ismin lahu fii kulli xaflin jotaay boo dem nu rëddidu ñu ngi fay euh, répété jotaay boo dem rek ñu ngi rafet répété lii may wax mooy njool faama njool gaaya njool comme moom ci wàllu taxawaay dafa demoon na presque deux mètres moom Cheikh Al Hadj Mari et quelque wala lu ko jege euh, kon njool la woon njool la mais njoolu maam faam faawaad wele moo tax fu mu dem ñu ne ah njool faamaa ngi waay jotaay bu mu toog moo ko moom ndax moo fay sut ba nga xam ne bu nit ñi taxawee moo leen sut moo fay dàq solu moo fay gën a rafet moo fay ëpp xam-xam moo fay ëpp éloquence moo tax fu mu toog dañ naan wax ne jotaay bu mu toog jotaayam la moo koy moom ndax moo fay gën a fës ci lépp nag coobare yàlla moo koy def léegi buñ demee ba cent après lui te jotaay boo dem di nga fa dégg njool faama njool gaaya fa yaa ajaban yéemu naa sayri doxin wi wala dëgg am na ñoo xam ne ñu ngi dunda ba ren te léeg-léeg nga jekki-jekki kenn laaj la leen waaye diw mu ngi dunda ba tey ñu ne pourtant mu ngi fi de dafa génnatul rek may laaj kuy dunda ñu koy laajte kooku bu dee nuñ <laughs> xam ko yaa ngi dund yow te kenn gisatu la ñuy laaj ndax yow yaa ngi fi ba tey wala kooku boo dee mu yébi koo xam ne nag jàpp nañ ne faatu na cent ans après te yow mënoo mënoo wax dix minutes yoo ko tuddul ci jotaay bu mën a doon euh, loolu wax dëgg yàlla ku ko tuddewul réussite mission mënoo ko tudde leneen léegi nag bi mu demee ba am 66 ans comme ni ñu ko xamee mbaalu ko jege léegi nag yàlla woo ko comme ni mu daan defal ñëpp nag ndax début boo gis dafay am fin téere nag buy waxtaan ba tudd desewu ki ki ki muy wax rek xamal ne liggéeyam maanaam téere ba jeex na ndax téere bu ne dafa am lu ko tax a jug bu demee ba tudd tàgge kooku nag mooy téere ba mu ngi waaj a jeex moo tax mu ne wala ma tammat wala ma tammat xayraatu rabbi daahu rabbuhu lil jiwaari ma nabil mu nawiri mu mel ni dafa niral nag Cheikh Al Hadj Malick ku atteindre mission mu ne bi mu demee nag ba atteindre mission bi ko yàlla santoon yëpp nag yàlla ci boppam moo ko invité boppam ci intimité ma jiwaari nabil munawwiri ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko nag vraiment si sonn nga kaay nag nga ñëw reposer ndax lu ñu waroon dénoncer dénoncer nga ko lu ñu waroon orienter def nga ko def nga ko plus de trois décennies trente trois ans jàngale na ko sans répit ah maintenant vous êtes fatigué kaay nag pour nga reposer fa jaa alahu ajalun après nag digam dikkal ko ci anam bu gaaw sax tabarakallahu te muy yaram wu tàng wi mu amoon mu yónnee ndar ñu wol ko sëñ Babacar Si ak Cerno Seydou ñooñu juste fekk ñoom it ñuy recevoir caabi zawiya bi nga xam ne moom lañ doon réfectionné doon doon ko agrandir ñooñu bi ñu ñëwee bi ñu yëgee télégramme bi lañ ñëw Tiwaawan rejoindre Cheikh Al Hadj Malick fekk ko muy jàmbat yaram bu tàng waaye itam ak faiblesse physique Serigne Cheikh Tidiane si nee na ñàkk a lekk ak naan euh, sonal na ko bi ñu ñëwee fekk mu tëdd dañu jox ko clé yi mu leen ndokk yàlla sama ñaari téere yi ma doon wax pare na kon nag ñeme naa pour bàyyi leen ak àdduna boole na Cerno Seydou Nourou ak sëñ Babacar Si boole njaboot gi yëpp maximum tëddul deux semaines wuy ji boromam fa jaa alahu ajalun de dikkal ko ndax yàlla ku mu mës a bind lépp lu tooy di nga wow lépp lu judd dinga faatu bi mu faatoo ñu tàggee ko waa senegal dëkk bi yëpp di toj boobu réew mi tolluñu nii daanaka waa réew mi yëpp xaj nañ ci benn dëkk wala benn bayal yegguñu woon sax un million wala ci lay yem euh, tubaab yi ñi fi nekkoon ñi euh, euh, relayé ko fii ba France fii ba ayof awoyof yëpp ñëpp yëg ne l'ami de France va nous muy Cheikh Al Hadj Malick radiallahu anhu teewoon kenn xaju fa jamono yooyu fekkoon na tabarakallahu déplacement yombul ludul ci Euh, réseau ferroviaire ñëpp dugg tabaarakallah man maa ngi am benn maam boo xam ne nee na ma mu ngi fàttaliku euh, train bi ni mu defe woon ay nit romb Rufisque mu gis ko nii euh, te fàttew ko ba tey ñu na mu naan lu xew ñu ne maam alaaj marik moo aj ndax loolu lañ daan wax mais nee na train bi keroog dafa fees del ba nit ñi lang xam naa ñoon yàgg nañ ci lang kon ndax bu dee 1922 fekk na grand-père yi di lang yàgg nañ ci langu trop terrain bi waxoo yëpp mag ñi nekk ci ndeysaan jubal jubal Tiwaawan septième gare fa sallahu ba ñëpp dajee nag mag ñi daje ñu daje eh, tabaarakallahu doomu baayam koo xam ne mook moom ak ñoom ñaar seen ñaari baay ko ndeeg baay muy donte doomam bu jigéen teg ci kooku la ñu jox eh, maanaam privilège mu jullee Cheikh Al Hadj Malick gorom la ndax mooy denc mam na fi si doomam mais itam seen ñaari baay bokk ndey ak baay muy maam Amadou si ak maam Ousmane ñoo bokk ndey ak baay muy ku ñuy wax maam Mor Khoudia si ay doom ak i ñu ngi fi ba tey e, tabaarakallahu moo tax mu ne fa sallahu jullee na ko xibbuhu soppeem boobu fa Mor Khoudia si akrim bi ahlil muxayiri na nga yéem teranga yi ki yàlla teral te boobu maam rawaan mu ngi fi maam Seydou Cerno Seydou Nourou Tall ñu ngi fi muqaddam yépp a ngi fi waaye Mamor Khoudia Sine mii bu dee muqaddamam itam dafa amaat beneen particularité mooy liñ jàng-jàng na ko li ñu xam-xam na ko muqaddamu Maodo la waaye itam frère la nag di iliman di goro di léppam kii moo jàngal sëñ Babacar si radiallahu anhu moom moo jur suñu baay sëriñ Moustapha si bii def burdu bii tey yal na ko yàlla doole guddal fanam bi Cheikh Al Hadj faatoo Maam Mor Khoudia si jullee ko jullee gi sax pour euh, pour ñu am na ay image alhamdulilah mais jullee gi pour pour pour pour sax ñu jullee ko problème la parce que raj la raj loo googu dañoo forcer rek ne allahu bar allahu akbar ji xam naa bu amoon sujjóot problème dina am ndax euh, raj raj loo gu bari gi ak mbooloo mu bari bi euh, mel ni rek bu ñu oote woon place de l'Obélisque la nit ñi teewe moo raw sax lii moo ko raw raj-raj loo ko ñu naan dal leen dal leen nekk leen dal leen mais nit ñi xamatuñu lu ñuy def ndax li leen animé xamuñu lan la ndax ki ñu bëggoon ki ñu doon dundee ki ñu soppoon seen xol moo leen quitté tey jii ñu nekk ci raj-raj loo googu ba yàgg mam Mor Khoudia si kabbar ci ndigalu maam seen Nourou ak sëñ Babacar si radiyallahu anhu ak i rakkam maam Hadj Mansour taxaw sëñ Habib taxaw sëñ Hadj taxaw mag ñi sës ci ñoom. sappe yi di di nekk ne rogg gudd lool bari lool tubaab yi amee seen sécurité doonte ñoom ñu mais agent de sécurité yëpp taxaw tabaarakallaahu ci ale boobu mu ñu ko dence tey foofu lañu defee loolu bi ñu paree quelque mag dem ba ci kanamu jàkk ji dence ka fa fa yet fanuhu denc na ko al abnaa ay doomam ñeenti doom yi Cheikh al Khalifa radiyallahu Serigne Mansour maam Mansour bal qawmi Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh ak Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib summa saiduhum ak saidu nuuru taal wasin wun lahu nga xam ne frère la woon muy sa saidu nuur mu kabbari moom moo dence góor gi ñii ñoo ko denc ci intimité am ñaanal yàlla Cheikh El Hadj Malick tabarakallahu ñu foogoon na nag biñ ko dencee fii la liggéeyam waroon a jeex ñu ne ko noppalul sa liggéey mat na sa liggéey jeex na ndekete beneen cycle de travaay moo war a ñëwaat bu gérer continuité ba ci centenaire bi yàlla na yàlla gërëmal ñu Cheikh Al Hadj bi jaay sëriñ bi sallallahu alayhi wa sallam aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu